waaw Sénégal nag gars yi neexu ba neexu mais dafa bëri hypocrisie quoi seetlu naa ne bi fi nguur gu bees gi toogee ba léegi bari na ay critiques yoo xamante ne bii franchement c'est pas teguwul ci yoon en tout cas parce que ñii à peine six mois rek lañ fi jot a def te lépp li nga xamante ne mu ngi xew processus la boo xamante mu ngi jóge ci nguur gi nga xamante moo fi jiitu woon donc li fiy xew yëpp muy cherté de la vie muy gaal yeeg muy inondation lépp loo xamante ne bii mu ngi fi am ñu di ko ñaxtu. doon na fi am donc il va falloir qu'on s'arme de patience pour mun leen gunge pour que ñu mun a réussir mission yooyu mais Sénégal dañoo tàmm ku dem au sommet ñu jéem la galgal pour nga wàcc loolu nag defarut am réew nañu jéem a ñu jéem a euh, rafetal quoi jéem a dem ci positivité jéem a accompagner suñu dirigeants yi nga xamante ne bi ñun ñoo leen fal donc diggante sol ak sumeeku nag il faut mu am yaramu neen nañ bàyyi caaxaan yi nañu waxante dëgg te bàyyi manipulation loolu rek moo bari fii Sénégal bari na hypocrisie bari na manipulation ku nekk ci sa ci sa ngay ci rek mu jëm sa sa boor. voilà donc man maa ngi en tout cas maa ngi encouragé man suñu dirigeant yi ñu ngi ci ci ci sur la bon voie ñu ngi dem sur reddition des comptes ñu ngi dem ci euh, joint justice ku ne xam ne ne euh, côté boobu am na am na am na tuuti rupture donc li ñu fi daan gis détention yi yàgg yi bu ñu la jàppee pour ñu dem yóbbu la nga jàkkaarloog juge dafay yàgg te gis nañ dernièrement donc euh, ñu fi woo ñëpp dañ leen régler seen dossier vite fait bàyyi leen ñu dem donc ku ku ku ku wax dëgg rek te yàlla xam ne mu ngi am ñu ngi teg ay jéego donc nañ leen jéem a accompagner te bàyyi galgal yi jaa ngeen jëf. Yoro nekk na ki nga xam ni kenn du ko présenté ci réew mi di senegal moom nag ak waykat bi nga xam ni siw na lool ci lu jëm ci wàllu waaye tamit taxawaayam gis nañ ko bu baax baax mën nañ ne bokk na ci waykat yi nga xam ni gis nañ leen bu baax a baax duñu tàmbali ko duñu wëndeelu fenn ci réew mi wala kat booba bi léegi bi nga xam ne ñu ngi def musique kenn xamoo leen ci kenn xamee ko ci lu ñàkk fu wala tey jii nag moom daal dina yëkkati kàddu jëmee ci état de grâce bi nga xam ne nguur gu yees gi waroon na ko am te may ñu ko benn yoon loolu nekk na act bi nga xam ni moom daal na koy ñaawlu ba fu ñaawlu daal di yem daal xam ni weesoowul benn yoon ndax kat Sénégal gi ñu toll mën nañ ne hypocrisie bi dafay bëri bu baax a baax te loolu dafay war a jeex nañu bàyyi hypocrite tey def li nga xam ni mooy dëgg mooy yoon ndax kat loolu la Sénégal gii daal di soxla rawat na ci jamono gi nga xam ni fa lañ daal di toll moom yoro artiste bi amul lu mu bàyyiwul ndax gis nañu taxawaay bi nga xam ni def nañ ko jëmee ko ci état bi yees bi la ngir ñàkk na may jàmm ak salaam loolu teguwul benn yoon ba tax na moom muy daal di yëkkati kàddoom di xamle bu baax a baax na Sénégal gën a taxawaat ngir jàppale état bi yees bile ñu may leen ñu mën a liggéey ndax kat loolu muy war ndax kat bu fale yàggul dara te nañ mën a prouver